morning, everyone, and uh, welcome back um, uh, from the weekend break. I hope you all had a restful one. Uh, Imam, you have the floor if you can uh, make, give some prayers, please. Thank you, Chair. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Rahim Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو عزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا وكفر لنا شيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا أعطنا وأتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تفلح الميعاد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 Thank you, Chairman. Lord God Jehovah, we thank you for the Pentecostal season and the Pentecostal power. We pray that it will hover around the whole wide world and sanctify the hearts and minds of all human beings. Grant that each and every one will respect each and every person we live in peace and harmony and unity and we will have the love of the rule of law and order in every nation. As we continue to our sitting this week, we pray that you will be with the witness that we shall have, that the witness will be able to speak the truth and grant the commission the discerning spirit to discern between truth and falsehood and continue to grant the population, the diaspora, and the international community as well to exercise the extraordinary patience to allow the due process to take its proper course. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much indeed, uh, Bishop Odiko. The, I think we should have interpretation for this summer uh, uh, part I mean, that we are going to be involved in because there is going to be a debriefing. Um, the Commission over the weekend, on Friday, people need to hear this. Yes, yes. Uh, uh, yes, Mr. Chair, perhaps we can have interpretation in two languages. Yeah. Uh, may we have the wall of interpreter also in the boot? Okay. A wall, a wall of interpreter. No. Thank you. Are we ready? Yeah, we are ready. Thank you very yeah. much indeed. As I was um, saying that uh, the commission on Friday ko chairman baytala jama bela ko eh, commission ñing arjuma tambila chairman mu ne mu ngi yëgal askan wi yëpp ne ajjuma ji weesu Look, a very important um, uh, component of its mandate. kukuma ba tamandi me ya lonko aketa eh, Am na am solo lo hamne mom sas bi. By visiting sites um, uh, that were constantly mentioned during testimonies um, uh, from witnesses. ntata dinkiral le kumpa bo lame ya lonko sede dinkiral la ntata dinkiral le kumpa bo. dañ demoon nemmeeku ji ay béréb yoo xam ne ñu ci bari ñoo xam ne joxe nañ fi seen seede dañ doon tudda béréb yooyu. Uh, the commission had them walk them through bush and the trail. komisonga tata mata, nga ebula kono silolu ta ndunta sutolu kono kata ñamolu kono kata o dinkirali jibe commissioner bi nag dugga nañ ci biir àll bi eh, dem ci béréb yu ci bari yoo xam ne pour mun a nemmeeku foofu noonu to establish um, uh, the truth of what exactly happened here 22, for, uh, 22 years under the Jammeh regime. Purunin kammala nsitaka kuolu sede ya men ya lonko welle keta kuolu ti mennu keta sanji muwan nin fulo kono ya jamme be maralola lola tumo na nyim banko kan ngir nag ñu mun dem gisal seen bopp béréb yooyu nga xam ne ay yaaxu-yaaxu amoon na fa ci jamono yi nga xam ne ñaar fukki at ak ñaar yi ron yaaya jàmme la woon the Commission carried out um, this mandate tirelessly. Commission yela law kango tamandi bataman soto je wakilo nin sayo kan. Commission binak nak def nañ eh, liggéey boobu nag ci farlu ñàkk tàyyi boo xam jaarale nañ ko ci. And uh, undaunted. Andum eh, ngake ñaale ma may ya lonko aman sika soto akoto. Te def nañ ko ci anam yoo xam ne nag amul sika sika. We are now going to brief you or debrief you on the visit. tamata kono ñu defoon ni nga la ak fa xew we are going to do it in two main parts fulaleti ñaari the first part is the sequence of the visit folo folo ñing wala keta kumpa la bulata ca njëlbeen nag nemmeeku yooyu ni nga xam ne noom la toftalante. and that debriefing would be done by the lead council. andu membe o kumo ka cakela wala mu lead council ti wala fanga bo diamo kela te lead council bi nak mo leena jotali fanna bobu nonu he is going to do it in several capacities andu abakela ala makamo la fan tukun jamal leto te dina ko def nak ci walli fanna yu bari ci walli ma xama yo xamne gaccio nako but primarily as uh, some uh, guy who coordinated uh, the uh, research and investigations unit who had organized the trip. bari bitum ko folod lato wala men taman tama nyim fangola kulu fayno kan ka ke kuti men si sabati men nata ke wala me amunta wala nata ke moluti men ye tamo nyim fangola kolondi ci benn fànn bi eh, nag ñi nga xam ne ñoo doon def ak toppatoo yoon woo nga xam ne moom lañ demoon yépp moom mooy ki na ci uh, that would be in that capacity, uh, not um, legal counsel. wo membe tarlawol wo wo makamo tamandi e wo manque legal counsel fonti ci fànn boobu nag boobu la cee faree utee nag ak jiit gi nga xam ne moom la jiitee If legal issues do come up, um, of course he's going to address those as well. nin kuolu wulita men ye lon ko wolu fanali ñantata la nin luwa la silolu le la bituŋate fanaŋ be diyamu la wo kuolu to le pour ka wolu noma sata e so apa be jotee nag fan na gi nga xam ne nag fa la faree ci wàlli looya yi fa tamit dina fa gaaral kàddu on this um, item i just want to add one quick point wo kuwo la karoo la a ku kilin ne la faa la jee ci kaw loolu nag am na loo xam ne lu gaaw loo xam ne rek bugga na ko cee yokka or rather preempt him a little bit. Uh, walla si uh, kuntuwa ñaato ɗum an ɗin doron walla boog mo haw ko jiitu tuuti rek gattandu ko and that is uh, during the visit um, uh, in Kanilai walla keta ko kumpa ɓoroɓe beke kantumo men na Kanilai moye jamano janga hamena nak e ganen Kanilai the citizens of Kanilai seem to have um, uh, fulfill their role as citizens of the Gambia, welcoming, well, not welcoming, but uh, there was no hostile reaction towards uh, the, uh, the visiting commissioners. wala kata wo ye la ya ya mu akita ñawñandi ñama man ku sangaraji fadaje la andu man kuyitandin na me ya asike kuke jawote waa ña nga xam ne ñooy waa yi nag ñoom wane nañ seen doomi réew yaa wane nañ ña waa réew mi lañ tax na ba nga xamee ne egga nañ fa nag wanuñ leen benn ñàkk kersa wanuñ leen dara loo xam lu leen naxari la luñ gis ci ñoom whatever happened in the past wokondim men ketanun kooma it has not um, uh, made us react um, uh, to each other with hostility. Uh, amma kendi hanfo nga kamfa kuo wala nyojawia kuo samba nyokan men kamfa sita nyola ni wess yep taxut nak be ben lo mer ak dal na bi they were out in the street and uh, in the in the balconies of their apartments silolu kan lolu ni koto roke ñi génn nañ ci mi ñi taxaw nañ seen kër yi ñi seen perong yi yépp pour teeru leen foofu They didn't um, clap or cheer the visit, for the visiting uh, team imam bulu kosikede sewo kuma fo ila sewo e fintitale dañ ka dala ka pour ko tamit ne I thought uh, that was a recognition of the mandate of this uh, commission alum waye ñina itandi koye fanali ye commission fo faŋo na loodu la ning ila e eh, kaŋo itandi le meŋ ye ko yo kango le di commission lay fanali yo dinkira bu ñale te loolu nag li mu moy mooy ñoom yek nañ sas bi nga xam ne moom lañ sas commission bi pour ñu doxal seeni liggéey ñu jàppale leen ci We do hope that um, uh, the work of the commission would continue in this um, uh, spirit throughout the country. Bitu nga ñin jiko soto woto commission la do ko asi tentenwo ñaama banko kan aniwo ŋaniya kiliŋo niwo eh, hamme kiliŋo kan te nag yaakaar nañ ne nag ci benn anam boobu dina continuer ci liggéey bi nga xam ne commission bi mu koo def mu doxee ci benn anam boobu benn façon ngi kéene gi ak benn jubluwaay bi the commission um, bi janne andu be du ko men ke kan ba ke kan gambiyan ko lu commission bi nag ñu ngi fi pour waa réew mi yëpp te liggéey bi ñoo def pour waa yëpp lañ defal. The citizens of Kanilai demonstrated that. Bitum Kanilai saateo dimulu ifanali yo yitandile. Te lolu nak wa doomi lolu wone nañ ko. With that brief introduction, may I call on the legal um, legal counsel to go ahead and then start the debriefing. Council, you have the floor, please. o kuma Chairman, fanambedia mosaundi la saayiŋ abe be la lead council la puro fanansi fanaŋ si ala ka caa dati a ñanta meŋ ke la ciyaman bi nag léegi lead council moom tamit mu joxe ci ay um, thank you very much Mr. Chair um, good morning Mr. Chairman commissioners and members of the audience lead council uh, uh, chairman numbara wokola ako abe mobe malaka damu ta chairman la commissioner lu e eh, ani menu be benta jang lead council gerem na chairman eh, ne nak mu ngi nuyu chairman bi ak commission bi ak ñi fi yeb uh, on friday uh, last friday ako ñi juma tambila mu ne ajuma ji ñu wessu uh, the commission organized a site visit on areas of interest to the work of the commission. Commission ye silo wulindi pour kata dinkiralu kumpabo commission hammo soto pour ka damen nuje ndataw dinkiral leto commission ah, bi nak ekati won nañ yon nak pour dem nemeku ji berew yi nga xamne itel na commission bi pour ñu dem gisal fa sen bopa ah, this was necessitated by two important reasons meye wo sabu dalila kumma fulale bije me ya lonko wole yo silo fangola wulo sabu te loolu nag li ko waral moo di ñaari mbir yoo xam ne am na solo lool moo tax ñu jóg dem yoon woowu. Uh, the first is to discharge the mandate of the commission to try to establish the fate and whereabouts of uh, disappeared persons. mais yo saabu wolam ñinti ñin fana mu commission la lo tankan le ti pour ka wuli ka mool doolu fana lu la ko a labanta ñamin anin ku ila koolu naata la ñamin pour nga ko silo fana nooma sata pour n siwo la ñaa loŋ Eh, bi ci commission bi ci seen liggéey pour tamit ñu xam ñi nga xam ne dañ jékkee-jékki rek réer ne meles naax saay ñu mun a xam ñooñu fan lañ féetee uh, and also to understand the terrain and locations that have so many times been mentioned in the in in the testimony of witnesses anin fanan pour ka dinkiralu je silolu anin damen numu dinkiralu ti Eh, sede jama menu menu tolu mo yeman dingulu la kolu eh, tarta da menu to bu ko ñu seen demal seen gis yi nga nañ ko fi ay yoon yoon eh, yoon ci ñi nga fi doon joxe seen uh, on this basis the commission uh, directed uh, the relevant teams that is the legal team and uh, the research and investigations team to organize uh, this, these visits. bitungo wadali le ya sabu commission fana nata feroke melnu mu kisikisir laluti melnu fana ya lonko wolle ka kuolu noma sata kebo nyoto inata silo nin kango di wolu la pour en eh, se kafu nyoma ka wuli pour kata wo dinkiralu fana lu je ke kumpa bo ah. loolu moo tax commission bi ñu sas ñi nga xam ne yi ak ñi nga xam def mbiri gëstu ci mbir yooyu yëpp ñu boole wante ñu mun a dem gis béréb boobu noonu in deciding where to visit and where not to visit, the, the, the, the, the commission was guided by the evidence that was presented before this commission by the junglers. eh, pour kaajuɓe ñanta futala damin anin futa la damin birin wulita molle fanalu tambita commission o ñaato mais ya lon ko wolle keta moluti mennu faŋolu bulo nin ima ña tarta kolu kono mennu keta eh, wo molu la kooti ntata mennu la dinkiralu juuɓe bi ñoo war a tànn nag béréb yi nga xam ne foofu lañu war a dem pour mun faa nemmeeku ji dañ sukkandiku ci seede ak kàddu yi nga xam ne ñi nga xam ne jëf ji seen boppa ñoom ñoo ko def mu di jongula si e, ñoom dañ sukkandiku ci seeni kàddu mun a tànn nag béréb yooyu nga xam ne moom lañ demoon seeti. for those of you who follow proceedings of the commission. mel ni yaa ko e ka commission la kuolu do kuolu nin kuolu nooma saata pour kaa lon yéen ñi nga yéen doon commission bi ci nga la doon uh, you would recall that several witnesses have mentioned certain places, mainly farms, where executions uh, or killings, unlawful killings were carried out. hakilo keta abara la luti jamal le fo damen ko keta balingol leti wala na damel no keta mo faadulalu ti doolu faa damel no to bitum dinkiralu anin e menni ya kumolu fo e, bo dalilo keta woleti pour ka futa dinkiralu to boo leen ko fàttale ko nak am na ay sede yoo xam ne tudda nañ ci bereb ci bari yoo xam ne béréb yooyu leen daan yóbbu nit ñi de leen fa rey ci anam yoo xam ne àndul ak yoon e, béréb yooyu lañ doon dem nemmeeku uh, the following video clip that we are going to show ñim video clipo men ibina fintindi la teng video bi nga xamne nak mom la ñoo waja sétane ci ni uh, will depict some of these places obeytandiro kelale wo dinkira dolula damenu kumba bota video bi dina sétane uh, dina feñal yenn ci bërepp yoyu Uh, please note that the purpose of these visits were not necessarily to discover human remains or bodies. Eh, fahamu ko na ko je ka je woti de uh, it was yeah. just to Oh, sorry, sorry, sorry. ñu xamal tamit ne ci ne dañ rek pour eh, sulli ay niw wala li nga lañ fa It was only meant to give the commission and the public an appreciation of uh, our understanding of the nature and setup of these places. Amunta eh, pour ka ñiŋ siloo di commission la commission la isa fahamu andum fana isi jeeri ke i fay wo kuolu keta anak ana eh, wo dinkiraalu fanaalu be dameŋ nutu pour jee si jeeroo si ke jee la fahamuroo si ke jee la aniŋ kuolu men ye a ko wolle keta wo dinkiraalu to pour eh, moolu sa fahamu dañ ko def rek nag pour commission bi ak nit ñi ci seen bopp sax mu mun leen a leer daal ci seen xel ñu mun a xam béréb yooyu nga xam ne moom lañ fi doon tudda naka la mel ak fan la faree Uh, so may I apologize in advance to people who are listening. bitun akabe molu bolo saila men ya lonko ibe lamoyro la ñin tembeng ani be jube rola. mu ne nag mu ngi jégalu ci nit ñi nga xam ne ji ci nekk jamono ji if they hear uh, information uh, about particular individuals and uh, where they may have been killed ni misali kama inata kibaru molu la kuoto men ya lonko e, e tarta wo kuwolu kono walla kita mo fa ye men no faa ni nata wo lakkumolu moye diyamolu kono e ani fata damenu to bitun akabe jama molu bolo sayla wala ise haketu na mu ngi jégalu askanu na bu fekkee ne vidéo bi ñoo wone si ni gis nañ ci ne am na seeni ay nit yoo xam ne bokk nañ ci ñiñ fa rey ak ñi nga xam ne def nañ leen fa dara mu ngi ciy jégalu Uh, on that note, may I ask the Obi Van to uh, play the video? Bitungo kango kang, ay di Obi Van la. And may I inform them that intermittently I'd ask them to stop the video so that I can make certain comments. And abe nyim fola eh, itul fanali men be video nyim fintindi la wati ni wati abe kara fola yen ye video nyi londi satara kumale bada anyanta menu fola wo tembo temboto eh, ifanalisi hakilotu woto léegi mooy sàkku nag ci ñi nga ñoo nekk ci obi bi euh, pour ñu vidéo mu di xamal ne nañ bàyyi xel ci ndax dina vidéo bi ngir mu am ay wax ci bi. Euh, kindly go ahead to play the video. saa yéen vidéo ñim fintindi. Euh, perhaps maybe I should say that uh, the visit included uh, uh, representatives of victims. Uh, eh. the director from the Victim Center was present and members of the press. Bitu abe nyim fanan folako, eh, mantora jawo lata melnu kan, wulu fanan la badingulu ani men ya lonko iye manta yefa, wulu fanan la badingulu eh, tarta kumbabor lalu nyilu konole, anin director men ya lonko wala be dinkira to ñim moolu man toro boy tamen no kan ila dinkira e kafra me victim center wol fana la directo be silo ñin kanay muna nak mu ngay xamal ne am na fa teewal ñi nga xam ne ñoo fa loru woon ndaxte béréb bi nga xam ne moom lañ ubbi pour ñuy gëstu mbiri ñi loru eh, seen njiit li eh, teewoon na fa um, members of the press are also there eh, kibar do kulalu fana lu men ka kibar take wol fana la moolu bi nu taskati xibaar yi ñoom tamit am nañu fa teew. the images we've just seen. nga melnu jewo ñaa télévision to. nataal biñ gis léegi nii ci télé bi. Ah, that's the NIA uh, office in Tanje. wala NIA la office ti membe Tanje. foofu office NIA bi nekk Tanje la. Ah, the rooms that we were shown. ye buñ konolu melnu fintindi jewo ñaa. néegi ñu fa woon. Ah, was one of them was the cell in which Ndur Cham was detained. Cell kilimu me ya fintindi wonya walem cello te yendur cham sorong cello men konono. Could you kindly continue to play the video please? Uh, could you continue it? Ben na cell yo yoyu nak uh, felen denchon dur cham. Uh, and uh, the the the Ndurcham was received uh, from one of these cells, the bigger one, where you have the, uh, the beehive. bitu aliyo femfingo menje santo kumburu nyato le mwote wo kumburu nyato be dinkira men to yendur chamdun dinu wole to adum biri ba je fanan ya fintindi wo bungole kono sine bobu ngeen gis lol mel ni nege yumba nak fofu cham uh, you can see Omar Jallo Oya he was the soldier who received Nur Cham from that cell. You could see him pointing to that cell. Nyimembelorin tenga kobe dirin wolom ikafole Omar Jallo wala Oya. Wolemu moti yen Ndur Cham fintin di selo kono tumo men na iteleya bondije. kii ngeen di gis nii nag mooy Omar Jallow ñu di ko wax Oya moom nag moom ci boppam eh, jamono ji ñoo génnee Ndour Cham. ci seel boobu moo fa nekk. Could you stop the video for the moment. Kaale video loolu di follow demande bi. Uh, he explained to us how he received Nur Cham from that cell and they drove him away and killed him on their way. aya satale itele nduru chambondi selo kono tumomena ka dum itolu ya bulandi moto kono ina bota je ini moto tata bito silo kay bitakan tumomena lom ye Cham fa ci vidéo bi mu ngi ñu see ni nga xam ne noonu lañ génnee nduur caam ci seel bi ak niñ leen ko jébbalee ak nañ ko yóbboo ba ko um, the Commission also visited another place uh, within the NIA premises in Tanje. Eh, commission o dinkira ɗo fanan kumpabo mai yalon ko a kono ena e o law korda men tanjeje commission ɓe ɓete nemme ko nen yo hamne keri nia kindly play the video please ali video ñim fintinde in 2016. Uh, uh, so uh, later, a year later, we had to come here and successfully from here and uh, to the for um, could you stop it there, please? Akali video londi demanding. Uh, the site that has just been showed fii uh, is the grave in which Solo Sandeng was buried. wala mu kaburoti ye Solo Sandeng baadee dameng. mooy bàmmeel bi nga xam ne fa lañ suul Solo Sandeng. I should say secretly buried. yaa kulloo to baadee le ka a ñanta fa la ñame. nañ ñoo wax ne fañ ko suul ci sekkare. And this was meant not to be discovered by the Gambian people adun ya pour nene kana kana te li bi gambia yi buñ xam uh, fortunately uh, uh, the evidence came out bitum ala ke fintindi fo yàlla def na mbir yi wone ne ko uh, mr thomas uh, gomez was one of the forensic officers who working for the police who exhumed Mr. Sandeng's body um, eh, or remains for that matter. Mr. Thomas Gomez atebe atemu mole time yalon kabere ko la police la bundale to men yalon ko lonna le hadama dingu e eh, bulu bulu tampolu aningu doku fasongolu e eh, kullolu men yalon ko nyaala jeer kullol le moliti atebe doku la police la karola itelena lenata solo sanden furo wuri wo dinkirato nu Thomas gomis nag moom ngi liggéey ci police bi te ko am xam-xam la nag ci fànne nga xam ne fa la ñoo seetee mbiri yax yi nit yi ak yooyu ee, moom nag wone na ne foofu foofu lañ suuloon solo sandeng foofu lañ ko suulee woon pour mu mun a wéral ne kooku solo sandeng la. Um, so he just explained uh, what happened and uh, when the exhumation took place. bitunga be men ca kan num video to num nyali menje wolem wato men itata je ka furew nyin sen kan wuri Ah, a ketan nu ñame nga boole saata kan nu wotu moo vidéo ñin to moom nag li moo nettali noonu ci vidéo bi mooy jamono ji nga xamoon ne demoon nañ sulli ji niw boobu noonu foofu noonu loolu laa nettali ni mu demee di ah, commission left Tanje bitum commission naata bo Tanje léegi nag commissioner yi bi ñu jógee Tanje and we moved on to the Fonies tumoo lem nga siloo taa kataa fooñi ci lañ dem nag dugga biir fooñi Uh, kindly play the video, please. Saying, alisi video nyim bondi koteke. Council, before we uh, move to the ponies, I think it's important um, to mention that uh, we did not um, see Solo Sunday's remains. We were told that the remains have been taken to the morgue in Banjul. Eh, eh, chairman kamen fo ñaa ko eh, a ata baake pour moolu ye lon ko a ko ŋa solo sanden furew je de walla ŋa mentuta to ŋa katu je kaatu ye ñin kibaaro le di ko birin ya a wuri je ya samba fure buŋo le to banjul saatew to Euh, chairman li wéral ne wal ne nit ñi ñu day bañ gisuñ fa li nga niwi solo sandeng bi wala li nga solo sandeng dañ leen wax ne eh, biñ ko dañ ko jël yóbbu ko ci fa nga fa denc nit ñu ba Indeed, that is a very important point to raise, Mr. Chair. Uh, lead council ko uh, chairman yo dinkira men fo nyaare dinkira kumma balem lead council na chairman wa amna solo lol nak nga leral bunta bobu uh, but in addition to that bare ka kafu ka kudo kafu wo fanamma way nak mu tamit ne Uh, uh, the commission did not actually investigate the Solo Sanden case commission e man kisi solo sanden na commission bi da muñ na pour gestu mbiri solo sanden ah, because that case is already in court kadu wo ko abe kiti bundala le foka pare ko be laari ni kiti bundala le mbiri solo sanden ni mu ngi ci bunti atté kay bi pare however we investigated some of the violations that happened to uh, as part of the ye ñanta tiñaalu nin tajire yaalu solo sande na kuwo kono yolu fanalu waaye na terew ba léegi commission bi ñu ngi doon gëstu li nga xam ne moo di loraange gi ak yi nga xam ne moom la ñu teg solo Sanding te yàq yelleefam yooyu moom bokk na ci commission bi doon gëstu. ak ak yàq fi ñi nga xam ne ñoo àndoon ak solo Sanding. anen ka moolu la ñantoolu tiñaa men ye lon koy ni solo Sanding be siloo kan. the commission left. Uh, the NIA premises in Tanje. Bring commission obota NIA la wo korda to Tanje. The commission bi buy a nak to berebu NIA bobu nek Tanje. Uh, we moved to the Fonies. Otumo lom nga silota pour kata Foni. Ci dal di dem nak dugga bir Foni. Uh, could you kindly play the video please? Saying e kalsi video ñim bondi. and move it a little bit. Move it a little bit so santangba kali sita ka santamba fintindi birim futata uh, so we this is the beach side of the river bank of santan of santamba forest Yalum santamba wulola bada ma fangolati bi eh, uh, you could see Omar Jallo explaining what happened in this particular place yaaje Omar Jallow le ɓe ka to Omar Jallow moom ngeen di gis nii nag muy wax nit ñi li nga xam ne xew ca béréb booba uh, he explained to the commission ñing kacca commission yen xamal na commission bi ne uh, one of the Ghanaians who was be one of the Ghanaians who were killed, who were being killed uh, at Brufut escaped. Ako eh, Ghanaiano lumeni alonko yefa Brufut kilimbe kononu me yalonko akanatale. kenn ci Ghanaian yi nga xam ne reyee nañ leen Brufut kenn ci ñoom dafa rëcca. and uh, he had a lot of injuries, especially on his arms and uh, his hands yo wo ikaye barama jamal le soto bala kata bara bala amon na gañu gañu yu bari ci yaramam ak ci he had severe cuts on them bala kuntum le tarta je men bara molti adulalu bala farata yaramam wi ay dog dog yu bari dal uh, you would recall the evidence uh, about those who were killed at uh, the Tanje uh, Bat, uh, Bat, Bat, Bat Reserve. hakilo sibula lukono ye tanje la wo kuno wulo kono wo wulo men kono je ye ya jan ko ko bere uh, they exhibited severe lacerations and cuts reminiscent of cutlass cuts. ye wol bala bala ye dimin balle je bala jaatolu me lonko o ye ñine ko ye muru balle ta ba fala me fango ke bala jaatolu sepun sepunga wala kata wo kuntun kuntumul men ya lonko akatay bala jaatolu bala nañ won ay dog yu metti yo xamne mu ngon ci seen yaram yi te ay jaasi mom lañ ko doge won and uh, this Ghanaian escaped uh, and was captured in one of the villages near Santamba. Brinyin Ghanaian o Canada, te mo kilo Canada. Ina ta sate dole to me yalon be Santamba balajele. jele. Ghanaian bobu nak mom bam recce dañ ko dem jappé ji ci ben dikka bo xamne mu ngi denda ak Santamba fi. And the villages called uh, what's his name again? Sana Manjang. dun sate o molu nata Sana Manjang ne kumandi. Wa dëkk kabanat nag ñu daldi oh, Sana Manjang. and informed him about the capture of this particular individual. bitumbiri sana manjang kumandi otumole ya faye ko nyimmo mutale abe buluji. bañ oye sana manjang ci lañ ko xamal nak ne amna kuñ fa japp fofu according to oya ko oya ya sata nyami oya mom limu wax moy uh, they went to the village and took over custody of this captured Ghanaian. ne bañ demee ca dëkk ba nag ñoom ci lañ dal di jël kooku waa Gaana boobu nga xam ne dafa gaañu woon ñu nangu ko ci loxo waa dëkk ba. and uh, the three of them. itelu moo saboo men taata ñi Gaana koo kam. bañ ko jëlee nag ñoom ñetta uh, that is uh, Sana Manjang. wala Sana Manjang. mooy Sana Manjang ci boppam. Omar Diallo Oya. anin Omar Diallo Oya men be adiyamu moom Omar Diallo Oya mii di wax ni. an Aliou Dieng. ak Aliou Dieng. <coughs> Ah, they took the victim to Yaya Jame's farm in Santanba. iye ñiŋ mu muta gaanankoñiŋ ka samba yaya jamme la kunkoo to santanbaa je ñoom ñetta ñooñu nag ci leen jaldi tiye gaaniyen boobu yóbbu ko ca tooli yaya jamme ba nekk santanbaa and at the river bank that you just seeing bitum ba jenjeng la je albe dinkiramen je kanteng ak ca bori dex gaw nga xamne mom ngeen di gis ni uh, they brought the Ghanaian down bito tumone ya ganan ko biri ya futandi je ya borin and fire manjang blew off his head sana manjay kidota ka ngote ci lañ wacce Ghanaian bi nak sana manjang dal di jël fetel toj bopam bi uh, and they left the body there utulari nje itata nyudem bai according to oya ko oya ya fo oya nakom nim ko wahe about a day or two later eh, tilikiling wala tilifula kola bañ bem am ben fan wala ñaari fan they received or they heard rumors in Kanilai that the body of the Ghanaian had been discovered. Could you stop the video for now? Wotumolom inata kibaro Kanilai je. k'a fɔ ko ɲin gananko min yafa fili fililari nje moolu ye furew ɲin ton bonne gannaaw gi nag ci lañ commencé di dégg nag ci waa laay di wax ne day am na niw boo xam ne ñu ngi ko gis foofu And, and the villagers decided to bury the remains of the victim. Utumolon sate umolu natataji purukata nyimfureuta kabade. Jamano joju nak wa dekaba ci len jël niw ba dal di ko suul. Uh, the trip was not all very smooth. Eh, be tembeta de wiñ de ne la It was in all cool and dandy. manke dia ning sewoti fanang. Nekuton yon bu yomba de. Play the video please. Ako video bondi kotake. But before they do that council I just need to interject them um, uh, here that uh, this is uh, this video that is coming shows uh, good Gambians, multitasking Gambians, and uh, what them uh, on the spur of the moment, totally unplanned, what them um, are uh, they can do together when they unite. ñin eh, video men kana ten chairman e men fo wolam eh, gambian ko lu mo kendo lumeni alonko hakili lonko lubela. ning awato sita siita a wulita ni kafuta ñooma isi kufa façoŋolu mel nu taamandinoo ka kumben ko mensi keno ku kendol vidéo bi li moo ni mooy am nañ fi ay doomi réew yu fari yoo xam ne emut rek ci li nga xam ne moom lañ leen xamee waaye nag eh, suñ fekkee ne booloo nañ dinañ mun a def ay yeneen a yeneen yoo xam ne nañ ko gis ci ñoom play the video please say al si vidéo ñimbol mbol ah, you see our vehicles were stuck in the mud itong aliya jeng moto lu tututa dameng gis nga moto yi fiñ poto poto bi nga xamne fa lañ so you could see soldiers uh, drivers lawyers investigators and what have you all of them uh, could you pause it there all of them joining hands to really help remove the, the two vehicles that were stuck in the mud. Aliyaje ko chairman afanyami. fanyami kabirin sojarolu dry folu kisi kisirlalu anin dokula kotenglu men ya lonko e wolu be daɓe tamoñin kono i beele kafata ñoma biri ñimmotolu tututa wo keñe poto kono uh, e, um, aketa kamben teɓeŋoliti be wulita ka ñoma koye kañum moto lu ñori han fo te bondi o tutuddinkiraɗo to di ngeen gis si video bi ne ñëpp a booloo woon amul soldar amul driver amul lawyer amul gëstukat ñoom ñëpp a booloo ben benn jubluwaay bi eh, pour génne moto boobu ci biir poto poto bi even lead council had to push hani lead council fango a fango tartamolu kono kam ka ka fumolo pour kañum moto lu ñori lead council bi sax dugana ci biir poto poto bi di pousse moto yi So together we can do the impossible. Ninkafuta nyoma nsi ku kolengo keno le me yalon ko dolu samira ko mente keno la lolu moy wonane mbolo moy dole buñu bolo ye rek dinañ mëna def lo xamne sax sentu wuñ ko ci ñoom but i also take this opportunity to thank the uh, officer and men of the Gambia National Army who were with us and provided us with security bari akabe ñin silo fanantala gambia national army na sojarolu abe numbarala abe jaila men ya lon ko wolle le nyola men ketal na kantar lati pour ka jeko na tanka na na tara kayro kono mbe ñin silo men kanteng mana mo ngay gërëm na kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci bunti soldar bi ak ña liggéey noonu nga xam ne ñu ngi àndoon ak ñoom pour amal leen kaaraange and uh, without their help it would not have been possible to remove those vehicles uh, from the mud nan ayatara wo sojaro la makoyro man kunje nun abe koleya la bakele pour ka o motolu bondi wo poto kono mune de bu taxuto na soldar yoyu dina don jafé torop pour ñu mëna génné moto yoyu ci bir poto poto bi uh, from there we were taken to another side of Santanba forest birim bota woto wo bada la yen samba Santanba wulo la dinkira dole fananto bañ baye ko fofu nak yobbu wat nañ ñu ci benen alla bo xamne mo nga ca Santanba Uh, that was also Yaya Jame's farm. yaya yaya could you show the video please video uh, this is where uh, tumani jallo and Abdullah gay were killed jallo noom ye tumani jallo ning abdoulaye gay faa dame fii ngeen di gis tumani jallo ak abdoulaye gay uh, inside Yaya Jame's farm. Yaya Jame la Stop it there. Yaya Jame ba. And uh, and in this place. Bitung nyinding kirato. Chibere bi. Omar Jallo indicated. Omar Jallo nyitandiko. Omar Jallo wonna nyune. That Tumani Jallo. ko Tumani Jallo. ne Tumani Jallo. and Abdullahi. Gueye. aniŋ Abdoulaye Gueye. ak Abdoulaye Gueye. were executed on that spot. ye fa dinkiraale to. ci béréb boobu fa lañ leen and put in a grave. One body on top of the other. Uh, the commission would continue with its forensic work. commission be continuer lale ila o kiskisir façon to pour ka wo dinkira façon li jibe in in these areas wo dinkira lo to wolem uh, men ya lon ko yemanta fata tem pour uh, nse ila ko kalango lon ka faham ke commission bi dinañ continuer di def seen liggéey pour xam ñooñu sen mbir a bere boobu naka la tere and may i warn the general public woto abed jama fanan dandala la ko ne mu ngi denku nak askan wi yep ne that this place is still a crime scene. o dinkiraamo dinkiraalde kuruya jawo keta damen ne béréb la boo xam nañ ko dañ fa def eh, béréb boo xam mbiri tafaara fa xew it is under observation aɗum or surveillance aɗum o dinkirayɓe je korosi kanne ɓe je kanta kanne te béréb boobu ñu ko garde di ko bàyyi xel so let people not venture to uh, to do anything untoward in these places. Woto kana wuli ka fo bita o dinkirato walla be kuta mandila je ifaye mo mo dinkal hana mira fang bon nag ñuy dénku ñëpp ne bu kenn xalaat sax ne da nga war dem ci béréb boobu wala nga di fa def dara. Uh, from that location we went to Bunubor. rimbata woto ndata dinkira doto i ka fa dama ye Bunubor. bañ fa bàyyeekoo nag ñu dem ci béréb bu ñoo wax Bunubor. kindly show the video please. ali woto video fanam bondi. Uh, this place too belongs to Yaya Jamme. Jam fanam mu kralti Yaya Jamme talom ñing kunko fananti. Bere mi tamit day Yaya Jamme la. Uh, this is the place that that contains one of the wells where victims were being uh, killed and dumped. Jam mu kralti kolongo be janneto kolongo me yalon ko ika moolu fana lu faa ikate réew lu fay koloŋo men kono abe ñin dinkiral do fii béréb la boo xam ne am na benn ci teen yi nga xam ne bu reyee nit ñi ci teen yooyu lañ leen di sànni but this is a very vast location jammu dinkira fanum baleti je warata jawkele fii la béréb bu yaatoo yaatu la uh, Yaya Jame's farms are often mighty if I may call it call them that way Yaya Jamme law ikake dame i waruta i warata fanuta uh, could you stop it there please uh, uh, some of these places are even bigger than the villages that they are next to. fanglu warata tile fanglu bala yi nak tolam yi daf de faral di torop be nga xamne dafa nga xamne mom lañ dendal some of them run into kilometers loolu fong katale han fo kilomita jama kunkolu yenn tool yi sax dafa nekk ay kilomita kilomita So it's really difficult, especially after changed vegetation over time, to really discover certain some of the features that were there some 15, 20 years ago. Oto akakoleale tumodulu puruka dinkira lu fonglu dinkira kumo fongoje wairi atata fo sanji tani lulu kata sanji muang pour que wo dinkiralu jeyi ɓe nun ñamin faliŋolu ketale yirolu ni ñamolu falinta dinkiralu to wo ya saabu dinkiralu dolu jewo aka koleya But the TR, yes please. loolu tax na ba wécceeku ci bari yoo xam ne am na fa waral na nag jafe-jafe pour ñu mun a xam yenn béréb yoo xam ne ñu ngi ko war a ah, non di les di TRRC investigations continue. baro ñaw ñan di TRRC la kisi kisi rolu be tenten na le. Waye be légui de gëstu TRRC di def dinañ ko continuer. Uh, the commission also visited Kanilai, as you would see in the clip. Commission itata le kata hanfo Kanilai sate fangoto kaji kumbabo ko iba itani la la Commission with them nañ eh, fu tam Kanilai tamit dem nañ fa ci niñ ko xamne non lañ But before Kanilai we went to Tintinba forest. Bari jangim bita Kanilai ntata wulo do fanan ko noy ka fa je Tintinba. Waye bala ñoo dem Kanilai dem nañ ci Allah ba nga xamne ñu Tintinba which is now being used as a uh, firing range for the army? ye je kedin kiral tidam yalan ko kata kidi fay ningo la jele ka fay je yi dañ ko def fa lañ dem di mbiri fetel and this is the place where uh, the uh, some of the uh, killed um, uh, well, some of the participants in the November, sorry, December 30 uh, attack to remove the Jame government uh, were buried. Jelom dinkirati dame yalon ko. December karo til tansa bo men yalon ko e wulita jamme kamma kala mansa kunda boyndi amana keno biri fa ni modinkirati tata dolu bade foofu nag béréb la boo xam ne ñi nga xam ne ñoo doon pare suuf nguuru yaaya jàmme fanweeri fan ci weeri décembre at boobu ñooñu biñ leen jàppee rey leen foofa lañ leen suul. Ah, that would be Jaaja Ñas um, what's sorry Landing Sane. wallam Jaaja Jaañ. ñooñu ñooy ku demee ni Jaaja Ñas Landing Sane ak Jaañ. Um, but uh, those rem their remains were exhumed. And uh, they, they were later on handed over to their respective families. Uh, thereafter, we went to Kanilai. Could you show the video and just uh, take it a little backwards to show the beginning of uh, the clip uh, with regards to Kanilai? bañ bàyyee ko ca béréb boobu dem Kanilaay. and uh, at Kanilai we visited at least two crocodile pond two crocodile ponds. birum futara Kanilai ndaata bamba dinkoolu fanaa lu jële mais yàlla ko fo dinkira fula bañ demee Kanilai dem nañ ñemeeku ji ñaari béréb yoo xam ne ya fa lañ nekk. Uh, you would recall that witness testimony indicated that several people were were killed, chopped up, and uh, and and thrown into the crocodile ponds as charity for the crocodiles. ngali hakkilo ba kan seeɗolu diyamuta janne mene ñim foko yemo jama mutale ye faa ni subo woluta ko ko la jalan ke di ko ko fi wax nañ fi ne nga fa la dinañ jël ay nit dañ leen di dal di leen dogat dogat dogat jël leen jox leen sarax pour eh, ah, we the commission has even had evidence of babies being thrown into the crocodile pond as charity for the, for the, for the crocodiles. hani hani nolu ike mutale ke ko wolu musadal yu fi wax sax ne sax dañ di jël pour mu sarax Um, apart from the crocodile ponds, the two play the video, please. Wo bamba kola gannaaw jësit yooyu. Uh, could you could you go back to the crocodile ponds please. Uh, this is Bunubor. Could you move it a little bit to the crocodile ponds. Alaban ilaban Bunubor To Kanilai, so to speak. Koya samba Kanilai. Uh, so we all can do all You understand? So could you reduce the volume a little bit? <laughs> uh, uh, we were just organizing ourselves here as to how to go to the crocodile ponds. Uh, it was important. Yes, go ahead. Jam mudin ko lead council ya fa be ko le kam pour nyanta bulala nyono ma pour ka futa obamba dinkoluma. Eh, ñu ngi doon ay pexe yi nga xam ne nañ ko mun a jël pour mun a egg ca béréb boobu nga xam ne fa la nekk. Uh, it was important that we reorganize ourselves because we wanted to show maximum respect to the people of Kanilai and also to the general environment uh, that we were in. Eh, ñing akuma yata bake pour je senendi eh, ay ñi itandi ko nga aketale pour ka bunya bayitandi kanilay ngolula

one of the crocodile pools in Kanilai, and uh, we are being uh, given an, a briefing by uh, one of the wildlife officers who is responsible for uh, taking care of these crocodiles. Jamuk bamba dinkolu bitun a tele marta o ɓe eh, bamba dinkolu la aɓe je keñale sata kammolu ye anin e eh, ka topoto ñami fii nag benn la ci béréb yi nga xam ne fa la jësit yi nekk kii ngeen di gis nii mu ngeen liggéey ci ñi nga xam ne saytu mbiri rab yi àll yi nii moom ñu doon waxal mbir yi nga xam ne la war a tere. Uh, they indicated to us that there are hundreds of crocodiles here in this pond uh, as you could see that mighty one. ay eh, ñii itandin na ko bambolu le bamba kono findita be ci ay fa bi ngeen di gis ni sax bu la ñu ngi fekk mu ngi génn. they tell us that there are even some that are much bigger than this one. andu ya ñu fa foko loolu fa lu bi jëm. to drain these crocodile ponds for the purposes of. forensic investigation e feero men ɓe commission o ɓulumu wolem ka jiyo be saɓañin e ko bamba ɗin ko kono pour jeeri sike ko bunda men menni alon ko wolle londo soto hadama ɗin kunolu nin hadama ɗum jaato keñala karola pour isa jiiɓe ka cdr o bondi o fanan karola commission bi na li seen sax mooy ñu ngacca ndox moomu yépp nga xam ne yi nekk ngir nag mu mun a yombal gëstu yi nga xam ne borom xam-xam yi gëstu ci wàlli yax yi des ci nit ki ak yooyu dinañ mun a yombal seen gëstu. Ah, but that decision was cancelled. bari inaata wo bàyyile. waaye nag loolu moom gannaaw gi dañ ko ah, because of the advice we received from the uh, wildlife authorities. kaatu eh, yamaro naata soto moolu men ya a lon ko wolle marata banko la ñiŋ mañama fenglu la ila tara tara kiralu ñanta tara la ñamin li tax nag ñu fooma ko mooy dafa am ndigal loo xam ne jot nañ ko mu ko ci ñi liggéey ci ñi nga xam ne ñooy saytu mbiri rab yooyu noonu uh, and uh, the importance of uh, ensuring that uh, the environment and the wildlife are also protected andu wo fana ye ñinaytandi ko akum mayata le pour dandaŋolu menu be wo maafaŋo la añiŋ wo mañama feŋolu mennu be dinkira ñiŋ to purwolu fanaŋ la tara ña a ye beteya a ye ñiiña a ye saha wayri wolu fanalu i e, e, la dinkira i be wo to pour i si jeetu a ñaama loolu nag moo di rek pour nag ñu mun a aar li nga xam ne moo ñu wër aari tamit sax rab yi nga xam ne ñoom ci béréb boobu fa la ñoo dundee uh, from there we visited other sites of Yaya james farm in Kanilai birin bata je futo ketale yaya jamme la kunkuloolu to men ye lon koy ɓe kanin lay ban fa fa nak nag e egganin ci yeneen tool yi nga xam ne tool yaya jamme lañ nekk fofa ca kanin lay These farms are so vast. Mun kunkoolu waratale hanfo fo alanna tambita. Tool yi dañ reey reey reey torop sax. Uh, <laughs> one could think that you would have a banjul or two inside them. musa mira fang fo banjul sate wala anyum fula sitara wo kenolu kono genna sa lele nga xalaat ne banjul ni mu mun nga am banjul tol uh, we visited the site uh, uh, where uh, uh, uh Ibu Job and Mahmoud Sise were killed and buried. Nga telefonan ka futa dinkirato dame ya lonko Ibu Job ani Mahmoud Sise ye fa ani ye dami video dem nañ seet ba nga xam ne Ibu ak fa lañ leen rey suul leen fa Uh, and uh, we discovered through, through the TRRC investigations, we discovered that this, this place was tampered with. Adung TRRC la kisi kisi rokolo. Nitata je ko, wodinkira e eh, moolu sotontale men ya a lon ko itata jeele ye kuolu tamandi je men mañanke la uh, we saw uh, mounds of, of soil nga bankolu tara bankolu men ye lon ko yesin ibe jurumarin ya ke tumu tumaluti men be jurumarin je tum jama te arasi banjame nak eh, gis nañ ne am na ay nit ñoo xam ne dem nañ fa dugal seen loxo ci béréb boobu noonu ndaxte gis nañ ay jali jali suuf yoo xam ñu ko fa gas and those were man made and not natural andu wo banku tumulu men bi je molle ye je amanke ko je be wala ñamade te jalisuf yooyu nag ñu gis ne loolu ay nit ñoo ko fa def. Uh, and uh, according to Oya they were not there when they killed Ibu Job and Mahmoud Cissé. wo banku tungulu tijee de. waato may be Ibu Job ni Mahmoud Cissé fala jee. te Oya wax nañu ne ba ñoo rey Ibu Job a Mahmoud Cissé day jalisuuf yooyu nekku fa woon. Uh, the TRRC dug an excavation of a vast place. TRRC TRRC naata dinkira si dame yaa lonko wo be wo dinkiral to dinkira fanu mu ñing. te arasi gas bereb boo xam ne nag mu nga foofa di bereb bu yaatu. we could not find anything. maam fen fenn taraji. fekkuñ fa dara. Uh, that perhaps explains the mounds of soil that we found there. woye dalilo yitandi wo banku tumulu menu bi jee wala yaa tandi ko molle tata jee pour ka jee ma aseke wolle yo frewlu bondi jee Eh, liñ ci gis nag mooy ne daal bon ay nit ñoom ñoo fa dem loolu moo waral jali suuf boobu ay nit ñoo ko gas. so it looks like the remains may have been removed. wala ñenti asake ko biriŋolu banku tuŋolu moolu mennu ye jee siŋ yewo tuŋolu tu jee walla wo dinkiraalu siŋ ye ñiŋ furewolu bondi jee bon nag li mu tekki mooy am na ay nit ñoo xam ne dem nañ gas foofu génne fa niw yi ah, the commission could not visit the well in Casamance commission man talo pour kata ko longo jube me ya lon ko wala be casamance because that sorry commission be mënuñu egg nak ca teen ba nga xam ne ah. moo nekk casamance mr chair may ask to be excused for two minutes first time you came here meet them, okay. are these soil mounds here? Very well. The ones I mean, the, the, the, police investigation, when I came with them here, from then there was no this soil uh, Were pictures taken? Yes. On video? Yes, they took pictures. Even the tree where I told them this is where we picked the spade from, it was pictured maybe uh, like uh, that. So Because the place was already disturbed before we came here in 2017. Yes. When you came here with the police, it was in 2017. Yes. I was part of this team. Okay. So the place was already disturbed So this mountain was already here. Okay. You look at the videos again. Do you need to explain what means to be disturbed? Disturbance, it wasn't like this. It wasn't like this. So the place was like somewhere, a lot of trees here and there. Later on, they had to come and then clear the top layer. This is why you have a lot of sand at the other end. Uh, when you buried those guys, how, how deep was the grave? Not deep, just knee level. These guys were sorry, you missed the first part. Yeah, fell through the first part. That is Mahmoud and Israel. Sorry about that, Mr. Chair. So, um, we, we could not visit the site in Casamas because it's outside the jurisdiction. Eh, montano Casamance dinkira ñin kumba bo kaatu amantara dina banko kan mënuñoo egga eh, nag ci béré ba nga xam ne moo nekk Casamance ndaxte ah, but there is oh, another site in this uh, James farm in in Kanilai but dinkira do fanam bi Eh, ya jame la wa na ca jame ba uh, ah, where mahawa cham and sol ndaw were buried lame ye mahawa cham ani sol ndaw fanam baade jeele foofa nga xam na fa cham ak sol ndaw uh, ah, one pattern to be drawn from all the evidence that was gathered in this site visit kolu kilin sotonta mosin men krosino nga ñin men ila bulata ma ñamin li nga la ci béréb yi nga fa lañ that uh, could you stop it there for the time being uh, is that all these crimes happened in very huge farms

a very big effort on the part of those who were involved in the operations to cover up their crimes. ɗum ko feere jamal pour yo tamandi pour sike kuuti me ko moolu si moolu isa num yaake alku jef jëf-jëf ju ñaaw ay yu ci bari ay yu lañ jël pour ñu fexere ba gis ne liñ def dinañ ko kenn gis yu lañ jël pour ñu fexere ba gis ne liñ def dinañ ko kenn gis ah, no wonder it is difficult in some occasions to find the remains wala pour kana wo je ibe damel sax mu jafe pour ñu xam yi nga fa lañ leen with the changes of the vegetation over time wayri dinkira nata falin ne ni to kata ay ay ci ay ñax ay garab yi nga fa sax looking for these remains looked like uh, looking for a needle in a stack of hay pour ka odin kira lo nyinin kaje ani mem muliyata wala nyinti nite ko be ben dango nyinin na nyama sito kono abe ko leral lolu ne ñu ko muna misale rek jafé jafé bim andal moy ne ngay wara ut pourso ci li nga xamne modi ay jalingoñ uh, from there the commission visited uh, this the uh, the former president's residence in Kanyelai. birim bo keta wotolem eh, na tadinkira kumba bo me ya lonko president koto na la damin bañ fa dem fa nga fa la président ba ba nga fa la Just before we leave the mounds, it might be of interest Sama, to know ko bola wo tungulu asike kuti puru eh, there is, there is a huge tract of land before the mounds kene bale fanam be be futala wo kene bala ega ci mbiri bala ko ci mbiri ñu tam ay bayal yu nañ daj where we were told them, um, uh, that uh, people who went to work on the president summer farm uh, were tilling the land there and uh, taking care of his um, uh, uh, crops andu eh, ya tandi na ko wo kunkolu le dinkiral ti e ka moolu sambaɗami men ya lon ko wolle kata do ko ke ala kunkolu to wo kunkolu wolle mo dingiraldi aɗum mo mo wolle fanalu ka kakketa moluti menu ka wo kunkolu ma sata ke topoto wonnan ñu ne bayal bu yaatu boobu nag mooy béréb bi nga xam ne ñiñ yobbu pour ñuy liggéey ci tooli yaaya jàmme ya ci béréb boobu lañ ko daan defé we are specifically if we were if they were paid to go and work for him for the number of days that they were there. They said between seven and uh, nine days um, each time they went to work. Andu uh, nyimfanang uh, amukule time ya lonko foye jole fo ibuka joban wala mnyinti ko nita ta do kola je dolu katara tili woro falla fo tili kolon to fang ibe do kola kunkolu to laaj na ñen nak uh, dañ leen daan fay jamono ji nga xam ne ay fan yiñ fa daan liggéey juróom ñaar dañ leen fay they said they weren't um, paid. They were given food. And a place to sleep. Councilor Council, you may continue, please. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair. Council Mr. Chair. And could you show the video, please? Saying see video ñin tentendi. Uh, we, this is uh, President Jammeh's former residence in Kanilai. Jalnum President Kotoya jamela Kordati Kanilai Sate This is inside inside the palace. Jamu paliso ñing kono leti meng ayaloje. Fi moy pale bi hamne President Jammeh sampana na ko ci Kanilai dëkkuwaayam ba. You would see it's a very opulent place. Albaaji la ko je mu dinkiral me yalon akata dinkira ñaaɓori mbaaleti je warata fanan béréb la boo xam ne nag béréb bu yaatu la um, well it is nothing less than a palace jewo kay ko ki ko gis fof béréb boobu mu sampa noonu moom euh, mel na daal béréb la boo xam ne nuroo na torop ak dëkkuwaay bu président war a dëkka muy palais uh, di di véhicule garage motolu motolu kaloo ɗamen garage oto fi moto yi dee taxaw. looks to me like some 80 meter hall. abele ko eh, bum kono me yalon ko mitar tan say kono le mu jeeti dafa melni saal bu yaatu la boo xam ne dem na ba ci juróom ñetti meetar juróom ñett fukki meetar maybe two and a half times the size of the TRRC hearing hall eh, asiko fang Eh, a warata TRRC la ñing saal baati le même bitaa fo si ñaa fula anin talante moo ñoŋ ci misaal daal saal bu mag bii nga xam ne fii la ñoo defee TRRC bii mel na ne suñ ko xaymaa ak foofu booba toll na ak bii ñaar ak genn walla eh, it could definitely take up to 50 cars ate fango kuma la miiraroo to hani moto tallulu be si loonoo le wo dinkiraato jee te man sax ni ma ko xaymaa de lu toll ci juróom fukki moto sax mun nañ faa But the shocking thing for me and for many is mbari mem mu kija tewti fangola karola ani mo jama fanan na karola li nga xamna sax moko gëna tital mom ak ñi nga xamne ñom la fa andal uh, not the opulence of the place and that everywhere was marble ko ñin na fanoni waro ye ku ñamin abemu e eh, bere bere mala mala laleti ye ye menna ak nekkul emul rek si nag béréb bu liggéey bu seer bi nga xam ne moom lañ ko sampee. Ah, but the fact that this huge garage was air conditioned. bari ñi mukku sotorinete ko wo garage warama baamen yàlla ku moo fo teng jebe ye faño suma yandiranga sotole air condition li ko ci gën a jaaxal sax mooy garage ba nga xam ne moto yi ñoo faa gaare sax dañ fa def ay air conditioner I wonder whether those vehicles used to feel the heat fodum wo moto lu men belorin je fo kando fon kafute male ba liko ci jaaxal moy ndax moto yañ fa garé dañ daan yek tangor so to the extent that the, that place had to be air conditioned fo ka fo foko hanfo ka wo dinkirake dinkirati dama ñanta tarla la sumayaren ka air conditioner ke ji dem wara jar sax moto yi fi ñoo garé ñu def fa air conditioner yu leena sedal by giant air conditioners twice the size of the big ones that we have here aɗum air conditionnel landa farsa balle bi je mais ya lon ko yewolle kije ko ñim façon lu menu bi jang même warata ñiluti ko signa fula wo façon le bi je te ay air conditionnel yu maga mag lañ yo xamne sax mut na ñaar ci yiñ amé fi ñun uh, but what is this what is disheartening bare mais ya lon ko wala nata ke jikila tewti uh, eh, li ci gëna naxaril hol sax moy this place is left and not taken care of ina taw dinkira tuutula je wala ñaama je bu ka toppatoo fereng bere ba moom nag léegi moom dañ ko baye noonu rek kenn toppatoowu ko uh, there are a lot of valuable things strewn all over the place je fen balle bi je men ya lon ko yewulu fayin fayin dinkira lu kata me ya lon ko fen lingol lem woluti

ay carton yi ak ay carton mu ngi def yu am solo ñu ko jël rek sànni ko uh, important books and uh, important material that uh, that would be of great value uh, really to the TRRC and to the history of this country. balu bije menu luti anin jamalu men fen for wolti men sikena fa fen baluti hani TRRC fon la uh, Amna fa ay téré yu am solo ak ay yo xamne sax TRRC dinañ ko jëriño ñi ci jëriño. As you could see in the rooms it looks like whosoever was there left in a hurry or that the place was ransacked. Kwali aje nyaming kufula leketa membe je amari nyamoto bale bota dinkira nyinto fengolu be janjan amari taringo dolle nata fo ko maje men dinkira nyimbe janjan ka fengolu nyilu nyoto ci niñ ko seetloo daf moo nuru mooy ñaari mbir benn bi mooy ne borom bam bàyyeekoo dafa yàkkamti woon béréb bi yëpp tasaaroo mu dem bàyyi ko noonu wala gannaaw bu mu fa bàyyeekoo am na ku fa gannaawu koo xam ne moo ñëw tasaare béréb bi. But certainly those who are in charge of the place are not interested in reorganizing the place. They left it as it is for all to see the way it was when they took over. Bitung melnu beje saying wolu ma soto pour ka je kuwolu topoto ka je senkan doku ka feŋolu tembendi ke ñoo kaŋ bitu itelu biri naata je ye je tara ñamiŋ ye feŋolu bee tutu la wole le ñaama feŋolu be janjandi ñami tel fanaŋ le ye a tuwo imam ñaama i maŋ feŋ je dafa mel ni ñi nga xam ne nag fi nekk ñoo saytu béréb boobu ñoom amuñ itte sax pour dajalewaat béréb bi dal di ko toppatoowaat ñoom daal ni béréb bi tasaaroo noonu lañ ko bàyyi pour ku ñëw gisee ko noonu. Uh, and and perhaps for them that is very important. yo fe a kuti men yata am nak pour ko nonu ñew gis ko lolu amna solo Uh, but we think that it is important that, that that place is reorganized and the valuable materials there are salvaged. bari nte lamiro to je e nyanta je toppotoola le ka feŋolu 50 tembendi ke laaku e andum na fa fen feŋ kendolu menu bi mo moo siwolu kanandino nyamen ke topoto waaye ñoom na pour ñoom seen gis-gis daal mooy ñu toppatoo waat bere bi dal di dajale waat yi nga xam ne am na fa solo ñu mun leena sowe But I must say that this visit was an eye-opener to a, a lot of us, a lot, and, and the, the, commissioners and staff of the TRRC and the media personalities that went there. Bari eh, abe memfola wole mnyinti, nyinyata ke nyinata ke nyayele ndirango leti, kabirin TRRC fongola mulu, kibar tala lumenu tata jii, laalu menu tata je ani menu ya lonko ibe ma beta silo nyin kan wuliyen menje akita mo be nyaayelen dirangol ti way ne mun na wax ne ñu ndey li ubbi na suñ bot lool ñun ña nga xam ne ñoo fa demoon ak ñi nga xam ne ñooy teskati xibaar yi liggéeykati TRRC yi ak ña fa teewoon yeb considering how Jame went to state house kemira 1994 kemira state house ñami 1994 sango kono suñ ko nga la state house atum 1994 and the man that left the gambia at the in 2017 anin moome yaalon ko atenata bo gambia banko kan 2017 sango kono akit ki nga xam ne bàyyeekoon na ci réew mi atum 19 atum 2017 uh, the pillaging and abuse of the resources of this country. Amari taro menke tinyaro menke nyimbanko na fulola. Said ah. borom yahu yahu nga Has been mind boggling. wo akata kuti lonko amiro na tambita molu fele don na lo dal dayo the vastness of these farms ñin wara jawo tool yi ñu dem nii rëy bi nga xam ne moom la rëy. and the opulence of Kanilai. anin Kanilai dinkira melloota je je laata ñame nga fanuta ñame. ak liggéey bu seer bi nga xam ne moom lañ liggéey ci néeg boobu nekk Kanilai. at the expense of the Gambian people. Me ya lonko aketa Gambia dingulilla taroleti wol ya amunta depanso bota wo ala abota wol le kokono. Te loliyeb da pasiba ye ko ci boppi wa Gambia yi. It's as shocking as it is a betrayal of the trust of the Gambian people. Wo mukijate woleti amanna dan wala anata ke jamfa jawoleti a mariye men ke gambiyankolu la kawlu la yaakaar la boo xam ne teg na ko ci kaw ñi nga xam ne waa gambiya lañ uh, no wonder in many eh, wo kunku jamalu men lon e uh, yu ci bari ci tool yooyu many of the neighboring villages saate jamaalu men e wo kunkolu lawo ma fangol la je dëkkay yi dendoo ak tool yooyu yëpp had to help themselves from the fencings that were in Kanilai to really protect their properties. wala ya sabu wo sansaŋolu men ye loŋ ko italtanun kanillayi doolu yaata pour ka a kela dinkiral to pour ibe fan tankandi la ñamiŋ moo tax sa sange yi nga xam ne moom lañ fa war a leen waa dëkk ko pour aaree Uh, on that note, Mr. Chair, I say thank you for giving me the opportunity to make this briefing. bitun lead council ay chairman numbara ka faye bitun abaraka ye silo men dinna pour ka ñing koolu bo ñoto gambian kooli lead council mu ne jere jef ling ma halal yomi pour ma leralal wa gambia mbir mi ni Thank you very much indeed, um, uh, Council, for that uh, splendid uh, debriefing. uh, Chairman Fananko inumbara e bake lead council yenyin kolu la nyamin aniye banke nyamin akita kunyi mabati. chairman mu ne jërëjëf lead council ci anam yi nga xam ne noonu nga leeralee mbir yëpp ak ni nga xam ne noonu la xewee. This would be an important um, contribution to the establishment of um, uh, the record of our proceedings. ñi mu dinkira fanna kuolu ku eh, kuolu tamandi mu la bu ci am solo na dinañu dimbali ci nga dogal yu mujja yi nga lañ Uh, Commissioner Kao, do you want to add uh, uh, something covering uh, the whereabouts of uh, the disappeared persons? Uh, chairman eh, eh, silo yele commissiona ka e pour nyum molu menu yemanda ten fo commissiona ka financina fella faje wo mo yemandi mon la kuoto chairman mu ne commissiona canada pour am dara lo buga wax nak lu aju ci ñi nga xamne dañ jéké jéké rek reer ken gisul len commissiona ka is the chairman of the subcommittee of the human rights um, uh, committee on uh, disappearances chairman uh, uh, commissiona ka atelom siranti oti komiti oto men ya lon ko ite lefanal ka moolu la kulu nooma sata men kata nyi moluti men ye man taten mo me eh, lon mo me kalangolo wa ngir commissioner kanang mo mo jite ja ñi nga xamne ñom lañ tan pour ñuy def ay gestu ci ñi nga xamne dañ reer ken gisatut len commissioner ka you have the please ka e bismillah thank you chairman akoy mbara chairman jerejef chairman na thank you lead council numbara lead council jërëjëf lead council um, I don't think I would have much to say because both you and Lead council have done a fantastic job of giving us an idea as to why we went for the visit. Ako atema mira kuma jama babulu fang abe memfola katu chairman fango ani lead council ye bankero men kijang amunda imam fentu koma ye dinkra fanna lu belema commissioner ka mu ne moom sax amatul lu bari lu moo wax ndaxte chairman bi ak lead council bi kàddu yu rafet yu am solo yu jaar yoon yi nga xam ne nañ ko fi As lead counsel said, this was in pursuit of our mandate uh, under Section 13B to establish and make known uh, the fate of disappeared uh, victims. Walem ko eh, lead counsel ya fo nyamin ni lete puru nyanta mentala puru bunda tang anin sabanjango la fanna fulanjango nyanta silo lumenu tala pour nyimmolu lumenu yemanta e nyante la kulu banke wala kajubi jubi nyanta kala nyamin comme li council ko rek bokk na ci liggéey niñ ko ci bunti bi nga fànn bi ak ci li nga liggéey. and that's according to the TRRC Act. wole mu TRRC la sartooti ko yaa landi ñamin. so since we started our mandate we've established a committee which the chairman mentioned. under the Human Rights Committee. Birin ye kuolu damuta ye londi kele kuolu la committee nyin nyanta sartolu menu noma sata la ko eh, commission la kuolu nyanta kele nyamin ti arasi la karo. Be ko terale nak ci wali loi yi nga xamne mom la ti arasi di dohe fenyal nañ yoon yi nga xamne fa lañ jaar. At the end of our work na do ko bandulato. Buñ jéxalé suñ liggéey. We will publish a report about

andun abeda min ten kayto babulu tolu be safirin dame a tolu menu bankela. la am naa fi nag ay tur yoo xam ne moom laa fi war a wax haruna jamme haruna jamme haruna jamme Mamadou Lamine Niassi Mamadou Lamine Niassi Mamadou Lamine Niassi Lamine Tunkara Lamine Tunkara Lamine Tunkara Jasaja Kujabi Jasaja Kujabi Dauda Bojang Dauda Bojang Ndur Cham Ndur Cham Buba Yabo Buba Yabo Nongombub, Nongombub, Ibulo, Ibulo, Man Lafikor Man Lafikor Daba Marena Daba Marena Abdoulaye An Abdoulaye An Lamin Dabo Lamin Dabo Masire Jamme Masire Jamme Alfaba. Alfaba. Alpha Tabara Samba Tabara Samba Gibeba. Gibeba. Malang Sonko Malang Sonko Lieutenant Elef Jaju. Lieutenant Elef Jaju. Sajin Lamin Jamme. Sajin Lamin Jamme. Lieutenant Aliuba. Lieutenant Aliuba. Baba Sanyang. Baba Sanyang. The West African migrants. Ani mo findula nyintili ji bankolu molu men ya mutajang menu be koma silo ta kanu. tur lim nii nag ak ñi nga ñoo fi nekkoon ay doxandeem jamono Fafanyam. Fafanyang. Abdoulaye Fall. Abdoulaye Fall. Basiru Baro. Basiru Baro. Mr. Sise. Mr. Sise. Escape Ghanian Ghanaian uh, from Burfoot. Anin Ghanan komen Kanata Kabu Burfoot. Corporal Dumbuya. Corporal Dumbuya. Lieutenant Almamo Mane. Lieutenant Almamo Mane. Chief Ibrahim Mane. Chief Ibrahim Mane. Suleiman Daw. Suleiman Daw. Ma Hawacham. Ma Omar Haidara. Omar Haidara. Tumani Jalo. Tumani Jalo. Sidi Mane. Sidi Mane. Momo Job. Momo Job. Ibu Job. Ibu Job. Kanyiba Kanyi. Kanyiba Kanyi. Lieutenant Aliou Sise. Lieutenant Aliou Sise. Um, we've also exhumed some some remains. Ako ye fureo dolu fanalu wurile. Turim lim ni amna ay niw yo xamne nak nag nañ but they are yet to be examined bari imma wolu la kolu jube folo waaye hmm. nak dañ mara set seet mbir and these are four persons ñël mu mo nani leti te ñenent lañ basiru kamara basiru kamara kadet amadou silla kadet amadou silla lamin jaju lamine jaju sajin emcc sajin emcc I have been working with uh, chairman and the rest of the commissioners and the investigators and the lead council. Anin chairman, anin kiskisirlalu, anin commissioner tomalu ni lead council ibebe doko ke kanyolale. Mune mong ron ligay nak ak chairman, commissioner yi ak lead council ak ni def wali gistri. Find the funds. Puru kana fulo nyini. As well as the secretariat I should. Uh, Andong anyanta officer nyim fananda bulala jele secretariat ning. to examine these bodies. Pour que ñu fréwlu jubé. And uh, as we said, we've gone far into this because through our hearings, we've been able to um, establish uh, the whereabouts a lot of these persons. Ako andunga safo no ko ila jam fatal de katu saing ayema ko ila hanifo jamalu ila nyamengani be damenuto te fi ni ñu ci sori am na wax nañ fi ay nañ yi nga nañ sukkandiku. Uh, as I said eventually we will write a report about the fate of the disappeared persons. kaya fo ñamin bitun kuwo bandulato ibe kibaro kensun na ibina men banque la men yalon ko wala tilinta molu la menu yemantaten comme ni mako waxe nak ca cioci tega dinañ jox ay xibaar lu aju ci ñi I just want to have a word with chairman in few minutes. kanin ciyaman lafta kaccalla kuma danta doron waati sutun kono Um, as I have revealed the names of these disappeared persons, we would call on the two religious leaders here. Ah, abe uh, that is bishop adiko and uh, imam jala imam jala is not here but oh, okay you know, to pray for the for those of the disappeared that are confirmed to have been um, dead. Walem nyinti puru Bishop Odiko memu eh, dina nyak aning eh, Imam Jalo puru ulfanalu isiduanyi molie wairi yemantale eh, isaje duasi keye pour la laajam si sono ya ngir kilifa dina yi nak ñu mëna ñaanal ñi nga xamne as well as all the victims of the past 22 years. Anim fana menu be ya lonko iye wala ifata wala nyama fula tambila kono mo maralo ko akit kepa ko ci ñaar ñaar yi nga mom may allah forgive their shortcomings lama ale yam feye ila kebaro luto yalla jegal len njumte and grant them jannah alama alaye ara janna kallanke o e len ajjanal uh, bishop you have the floor bitum bishop wala bina ala duwakila ñin talalu ye thank you chairman lord god of mercy and of grace the creator of all humankind that you have planted in every nations of the world we bring before you the victims of the last 22 years of the reign of Yahya AJJ Jame, those who disappeared mysteriously and uh, whose, some of them whose bodies and remains have been discovered where they have been buried. We continue to pray, Lord, that you who have created each and every one of them. And of you have planted them in this nation and in other nations. And they found a way here. An unfortunate um, tragedy met them. We beg, Lord, that you shall grant each and every one of them eternal rest in the heavens. We also pray for the family members that you will console each and every family member that is so connected, that have been grieving over these years without actually knowing what actually happened to their loved ones. Now that it has been revealed, we pray that you will grant them comfort, grant them consolation, and grant them a closure in all these years of wonder and of doubt. And so we ask that you will continue to make the necessary provision for their families. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Bishop Odiko. Imam, you have the floor, if you can. Thank you, Jesus. Disappeared. comme ni ngeen ko déggee tey léegi xam nañ suñ mbokki mbokk yi la fan lañ jëm xam nañ liñ leen def ak naka lañ ko defee defee ñun nag ci ni ñoo ñaanee mooy faatiya la ak fukki ixlaas ak benn moo la ñoo ñaanal nit ñi nit ñi nga xam ne jiitu nañ e ñu def loolu ñun ñëpp ci suñ làmmeñ yaakaar ne yàlla dina dégg kenn ci ñun mu yéréem aji jiitu yi le xare leen ajjana bisimilah سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين آمين يلا لن يلا يريم آمين كونسل Council uh, witness um, uh, where are we on that one who has been waiting uh, a while uh, do we take a break and then come back or do we start with him yes let's take a short break Uh, and and uh, we come back after that. So we uh, restore the connection and then we proceed. But he's been waiting. Would 30 minutes be all right? 15 would do for me. Splendid. All right. Fine. let's make it um, 1.15 we come back. Okay. All right. No problem. It's about 20 minutes. Thank you very much. Okay. Cheers. Meeting is adjourned. Thank you all very much indeed. say we slept in one world and woke up in another. This global tragedy got humans together despite our social distancing. Our nature is taking a break. and giving us a wake-up call on what and who truly matters. Look around you. Hold on. Breathe. Count your blessings. Take time for self-renewal for a better start tomorrow. Soon, life will be back. Meanwhile, let's stand apart together with one heart. o noor ndox yi paap yi dañuy senn senn yaaw ak Shell nit ñi ñu ngi liggéeyee yéen bonus am only two weeks mun lañ moom la ñoo jël ñu yóbbu ko yóbbu yépp um, I have a question for uh, QCell. The speed is completely bad. For the internet. Mm -hmm. So they, the QCell people even told me that when you go to Kome, you will come back. Mm -hmm. I went to Kome and what they say is true. The same thing, I move from commune. But I also have a question as a consumer. Sure. And it has to do with drop calls from Gamcell. Mm -hmm. I've been raising these questions for the longest time. I mean, I have a 996 number as government, and afraid I don't even use it because it's I can't communicate.